alhamdulilahi awalan wa axiran ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di sant uh, kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo saytu liggéey bi nekk ci centre bu mag bii nga xam ne béréb la boo xam ne ci béréb yi alkitab ak sunna di damu fii ci sunum réew rawatina ci capital bi fekk fi ay kilifa yoo xam ne moo xam njiitul centre bi la moo xam secrétaire général bi la moo xam oustaz Abdul Wadud waaye ñoom ñëpp ñu doon suñu mbokk yoo xam ne euh, su fekkul woon ne euh, dara la sax ay jataay yu bare bari boole nanu yoo xam ne ci jataayu liggéey bi la su dul woon leneen kon yooyu nuy daje rek won na ne liggéey bi benn la oustaz Abdul ci suñ biir la bokk noonu itam nekk noonu ci biiram lañu nekk ñoo bokk li ñuy liggéeyee doy na sëkk rek ñoo xam ne daara jee ñu nekk conseil supérieur bi nga xam ne ñoo koy saytu membre la ci moom oustaz Abdullahi ànd nañ ay yoon yooni yoon defe naa ne bokk ay conférence yu ñuy daje ci tugal rawatina ci Espagne ak leneen ak leneen yu yàgg yàgg loo xam ne lu jiitu lool la lu dul loolu béréb bi béréb la boo xam ne historique euh, am ak sunu doxin ci nun euh, daanaka duma ci dugg di ci yaatal ndax ñin ciy waxal xam nañ ko bu baax a baax bi nuyu ndaw ñi nga xam ne itam ñoom ñooy taw ci organiser lu mel nii di leen ci sant itam di ñaan sunu borom tabaraka wa taala jataay bi doon jataay bu barkeel yeneen jataay yi cay tegu it nekk jataay yu barkeel ndax xam naa ne ak ubbi la guñ leen di ubbil ab jataay boo xam ne ñoom dañoo fas yéene mu continuer doon jataayu xam-xam boo xam ne day sax kon noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu sax te barkeel tomb bi nag nga xam ne moom lañ ñaan nu ubbee ko tey moo di ahamiyatu talab al ilmi shar'i solo si nga xam ne sànku sàkku xam-xamu sharia am na ko maanaam importance bi nga xam ne sàkku xam-xamu diine shariatul islam am na ko tomb bi nag xëy na waxtu wi bariwul waaye gém nañ koo seddale ci juróomi xaaj benn bu ci nekk buñ mënta wax la ca aju lépp danañu ca jaar rek laal ci li nga xam ne moom la waxtu wi laaj xaaj bu jëkk bi moo di xaqiqatul ilmi shar'i ñaareel bi mooy fadlul ilmi shar'i waaw sopp bi moo xaw mel eh, bi mooy fadlul aalim ñeenteel bi moo di aafaatu talab juróomeel bi mooy kayfa aalaja salafu kon juróomi tomb la bi ci jëkk danañ jéem a jaar ci lan lañ jublu dëgg-dëgg ci xam-xamu sharia bi ñuy wax beneen bi mooy ngëneel li nga xam ne xam-xam am na ko ñetteel bi mooy ngëneel li nga xam ne boroom xam-xam yàlla jox na ko ko ñeenteel bi nag mooy ay gàkk ak ay ayib ak i tolof tolof yoo xam ne mën naa gaar boroom xam-xam wala ki jóg di sàkku ci xam-xam bi ci mujj moo di gàkk yooyu wala tolof tolof yooyu nga xam ne mooy gaar boroom xam-xam bi wala ki sàkku xam ki sàkku xam-xam fan la as-salafu lan lañ jëfandikoo ñoom pour saafara ko bi maanaam faj ko ci képp koo xam ne gaar na la tàmbale ci seen bopp ñu daal di jublu rek kon ci tomb bi nga xam ne mooy bi ci jëkk mu di xaqiqatul ilmi shar'i al ilmu su fekkoon ne dañ koy définir rek ci wàllu kàllaama dañuy wax ne mooy diddul jahl diddul jahli maanaam mooy safaanub réer xam-xam mooy safaanu réer daldi nag dudd ci boppam ci kàllaam ak dafa am lu muy firi am leneen lu ñu tudde naqiid ñoom ñaar boo gënee xóotal tuut ci wàllu mantiq bokkuñu lu ñuy joxe ndax dañuy wax ne addiddaani laa yajtamiaani wa qad yartafiaan diddaani kon xam-xam ak réer diddaani lañ waaye nekkuñu naqiidayn diddaani moom laa yajtamiaani ñaari ñaari safaan ñaari contraire mënuñoo daje fenn waaye nag ñoom ñaar ñëpp mën nañ faa ñàkk a nekk itam ba tey cest à benn point bi mënul weex ba noppi ñuul kon ñuulaay bi ak weexaay bi mënuñoo daje ci benn point kon ñoom ñaar dañuy wax ne dëj daani lañ waaye nag ñoom ñaar ñëpp mën nañ faa bañ a nekk mën na nekk tomb boo xam dafa xonq dafa rouge kon at yartafiaan xam-xam ak réer noonu lañ mel mënuñoo daje. ñu ne kii jaahil la waaye aalim la déedéet waaye nag mën naa am loo xam ne di su ko was di ko melal di wax ne xam na walla réer na boo jëloon photo bii tey doo ko mu mënoo ko melal nga ne poto bii taxaw wala micro bii dafa réer wala nga ne day boroom xam-xam kon yartafiaan mën nañoo bañ a daje ñoom ñaar fenn mën nañoo yëkkatiku ñoom ñaar ñëpp bu doon naqiidaani nag dañuy wax ne laa yajtamiaani wala yartafiaani mënuñoo daje fenn waaye mënul ñàkk kenn ka nekk fa itam soo jëloon lu mel ne dund ak dee ci maanaa li nga xam ne moom la gën a siiwee faaw lu dundul rek lu mën a doon lu dee la ca nañu firee dund ak nañu firee dee waaye nag mënuñoo bokk itam di dund di dee mun mënta bokk même waxtu di fa dund di dee wala mu ñàkk dund ñàkk a dee loolu mënul nekk kon loolu moo tàqale diggante bët daane ak moo tax ñu ne al ilmu ci boppam duddul jahli man kon safaan la boo xam ne noonu lañ safaanoo moom xam-xam ak réer ñi nga xam ne it ñooy définir xam-xam ci wàllu mantiq dañuy wax ne idraku shay'i ala ma huwa alayhi fi lwaqi mbir mu mën a doon nga xame ko na mu mel na mu ak la mu doon nga xame ko noona loola la ñuy tudde xam-xam am na ñoo xam ne dañ koy tudde ne mooy loo xam ne dogu nga ne lii la déedéet mën ngaa dogu ne lii la ba fekk ba pare fekk du noona ndax léeg-léeg euh, jumtuwaay yi nuy jëfandikoo ngir xam jumtukaay yi nuy jëfandikoo nun ngir xam léeg-léeg mu jox la ab xam-xam boo xam ne fekk du noona la ca gën a jege rek kenn ku ne xam na ne cër yi ñuy jëfandikoo ngir xam ko mooy li siiwe ne juróom-benn cër la damay faral di wax ne juróom-benn la waaye juróom yi siiw muy bët ak gis ak lay xeeñ ak la ngay laal ak li ngay mos ñu dolli ca beneen boo xam ne moo lay xamal li diis ak li woyof euh, loolu boo doon xool bët bi gis benn ker ker goo xam ne keru garab la wala keru bâtiment la nga di ko xool te bët bët moo la war a jox xam-xamub lépp loo xam ne lu ñuy gis la bët bi lim lay jox mooy ker gi dafa taxaw wala boo xoolee da ngay gis ne ker garab gi doxul mais boo bàyyee ba ne tuuti boo xoolee da nga xam ne day dox parce que da nga gis ne déplacé na fi mu nekkoon jóge na fi kon bu fekkoon ne da ngaa sukkandiku ci li la bët bi jox rek nga ne loolu mooy xam-xam bi parce que jamono yooy yaa ngi dogu ne dafa taxaw su doon dogu rek mooy xam-xam kon loolu doon xam-xam waaye nag idraku shay'i ala ma huwa alayhi fi lwaaqi la mbir ma doon dëgg dëgg dëgg su fekkee ne xame nga ko noona loolu la ñuy tudde xam waaye loo ca dogu dogu te du noona nag loola moom du xam-xam loolu mooy jëmbi xam-xam rek ci définir ko ci wàllu mantiq waaye bu dee nag xam-xamu ko mooy maarifatu ma anzala allahu ala rasulihi min albayinati walhuda maarifatu ma anzala allahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa ci ab yonentam mu doon loo xam ne mooy gindi doom aadama ci seeni pas-pas ci seeni jaamu yàlla ci seen jikko ci seenu dund loolee yàlla wàcce ci yonentam bi mu jaare ci alquran jaare ci sunna loolu mooy xam-xamu sharia loolu mooy xam-xamu sharia loolu nag mooy xam-xam bi nga xam ne moom yàlla daf koo tagg tagg goo xam ne mutlaq la fil kitaab wa sunna bépp xam-xam boo gis alquran di ko tagg mutlaqan wala sunna di ko tagg mutlaqan di wax ne lu baax la te baaxin woowu tënku ko ci lenn daf ne baax na xamal ne xam-xamu sharia la ci sunu borom tabaraka wa taala jublu lu dul xam-xamu sharia boobu nga xam ne moo ñëw ci alquran ak sunna nag ci xeeti xam-xam yi ci xeeti xam-xam yi am yépp muy doomu aadama yi gëstu ba xamal ko seen bopp ak yi fexe ba trouvé ko nu mu mën a demee benn mu doon moyen boo xam ne dalay yóbbu ci aw yiw mooy nga xame ci li sa borom bëgg ci yow ak lim bañ man cee baaxal sa dund su ko defee bu boobaa wasila lay nekk la xëyit wala mu doon safaanu loolu nga jàng ko ba pare jëriñoowoo ci ci sa allaaxira lu lay jëriñ ëllëg su boobaa mu nekk zaria ila shar mu doon loo xam ne moom itam bu boobaa jumtuwaay la boo xam ne dafay lor boroom léeg-léeg jëmmi xam-xam bi ci boppam mu doon loo xam ne nit ki jàng na ko mu doon lu ko mën a jëriñ mën koo lor kon xam-xam biñ tagg tagg bu nekk la mooy xam-xamu sharia waaye dul boobu day am njëriñ fii lor fii kii jariñu ci kii loru ci noonu rek lay demee su ko defee nag bu boobaa xam-xam boobu ab atteem ab atteem mi ngi aju ci la muy jëriñ su fekkee xam-xam bu baax la boo xam ne day jariñ jëriñ askan bi société bi dañ kiy jariñ ci seenu dund day baaxal seenu jaam day tax ñu mën a jaamu yàlla su boobaa xam-xam bu baax la te bu mel noonu la ko sharia di joxe su fekkee ay loro ca ëpp nag su amee njariñ am lor waaye lor ji moo gën a bari su boobaa sharia day daal di tere boobu xam-xam te xam-xam yooyu yëmul rek ci euh, xam-xam yi ñu jàng di ci gëstu nii comme li ñuy baaxale dund gi waaye même xam yi nga xam ne dañ koy jàng muy lu jublu ci li ñuy jàngee kàllaam ak araab la ca aju ci balaaxa lu aju ci usul ak fiq ak xam-xami qawaid xadis ak yooyu yëpp <clears throat> ay jumtuwaay la yoo xam ne moom itam dafay dimbali nit ki pour mu mën a xam xam-xamu alquran ak sunna eh, dëgg la nag lislaam doon na diine joo xam ne dafa soññee ci xam-xam ak xalaat dañoo bëgg yi nit ki teg bëtam ci kéemaani yàlla yim bind ñu bañ koo bàyyeek ñeneen ñi ñu di ca jariñu jullit bi bañ cee jariñu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na benn bis mu xëy mu ne laqad nazalat alayya al-layla laqad nazalat alayya al-laylata ayatun waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha mu ne biig daal am na ay ay alquran yoo xam ne wàcc na ci man taskare ñeel na képp koo xam ne da koy jàng te du ko settantal yooyu mooy yan mu ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi alleyli wannahaari la ayatin li ulil albaab alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim balaa ja jeex kon aaya boobu boo ko seetloo mi ngi aju ci li aju ci kawnu bi mooy ayatullahi alkawniya mooy li yàlla bind ci nature bi te bëgg nit ñi xalaat ci ngir ñi mën a xam seen borom waaye ngir ñu mën a jariñu ci seen adduna itam ndax xalaat yooyu mooy jur xam-xamu adduna foofu la borom bi di waxe ne bind gi bind asamaan yi bind gi bind suuf yi guddi ak bëccëg wóote gi ñu wóote nee na yooyu yëpp boo ko xoolee danga gis ne ay kéemaan a ngi ci li ulil albaab ñi nga xam ne ñooy borom xel yi kon xel mi bëgg nañ nit ki di ko jëfandikoo ngir mu mën lu mel noonu kon daal pour gàttal loolu kon xam-xamu sharia mooy xam-xamu alquran ak sunna loolu mooy gàttal bi waaye bépp beneen xam-xam bu nit ki jàng nga di ko jëriñ ngir mu xam alquran ak sunna wala mu jariñ ko ci addunaam te amul contradiction ak dundam ci diine l'islam boobu xam-xam l'islam daf cay soññee day soññee it gëstu ca ba xóot ca ba mën caa jëriñ saw askan fii ci àdduna ak nga mën caa jariñu mu nekk moyen bu lay jëriñ ëllëg buñ duggee nag ci ñaareelu tomb bi te muy ngëneel li nga xam ne xam-xam am na ko bari na lool waaye danañ ci jéem a gàttal rek ndax xam-xam ci wàllu sharia nag ci suñ diini jii moom dafa nekk lu mag dafa tuutiwul su ma dee joxe ay tegtal ci loolu ci importance bi nga xam ne jëmmi xam-xam bi am na ko moo di xam-xam moom la sharia jiital ci lépp muqaddamun ala gayrihi moo tax Sufyaan ibnu Uyayna rahimahullah dañ koo laaj lan mooy ngëneelul xam-xam mu ne alam tasma qawlahu xiina bada'a bihi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dambik fa amara bil amali ba'da al ilm dañ ko laaj lan mooy ngëneelul xam-xam mu ne ko xanaa gisoo ne sunu borom tabaraka wa taala bi muy santaane ñu jëf ñu jëf mu di jëf ji li ci jiitu muy gëm yàlla ak bépp jëf boo xam ne day tax ñu far say bàkkaar wala wax kon pas-pas ak wax ak jëf loolu li ko war a jiitu mooy xam-xam mu ne kon faalam annahu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ji koo wax ci sa làmmiñ mu doon luy jariñ te fekkul ne da nga koo xam ba noppi da ngay xam li ngay wax kon faxlam ji moo jiitu mu li tax nag mu tàmbalee ci ne xamal ba noppi door laa wax li ngay def moo lay wan ne jëf xam-xam da ko war a jiitu loolu moo tax al imaamul buxaari rahimahullah am na benn bunt ci téeréem bi ñuy wax saxiixul buxaari daf ne baabun al ilmu qabla al qawli wal amal al ilmu qabla al qawli wal amal mu ne bunt boobu lam cay andi moo di ne xam-xam mooy jiitu wax mooy jiitu jëf kon ki xamul daa war a tey làmmiñam war te jëf itam ndax su waxee wax njaaxum su jëfee itam juum imaamul buxaari bi mu indee loolu ba àggal mu ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li danbik kon tomb bu njëkk bi moo di al ilmu muqaddamun ala gayrihi xam-xam moo jiitu lépp loo xam ne nit ki ngi koy def ci xeetu jaamu yàlla moo xam wax la moo xam jëf la kon kooku benn importance la ñaareel bi moo di al ilmu nuurul basira dafa am ñaari gis yoo xam ne ñaari làmp yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa la koo defal benn làmp bi mooy làmpu bët ci ngay gisee fi ngay teg sa tànk boo dee dox ci mbedd mi waaye am beneen bët boo xam ne mooy bëtu xol bëtu xol boobu bu leerut nit ki du gis fan lay jaar ci wàllu diineem moo tax fa innaha la taamal absar wala borom bi wax walakin taamal qulub allati fi sudur borom bi tabaraka wa taala nee na silmaxa dëgg dëgg dëgg du mooy ki ñu nattoo ay bëtam gisul waaye silmaxa dëgg dëgg mooy ki nga xam ne xolam xamul fu muy jaar maanaam amul xam-xamu diine loolu moo tax sunu borom tabaraka wa taala def nit ñi ñu nekk ñaari xaaj benn nga doon ko am xam-xam ci diine ba li ngay def nga xam ko booy jaamu yàlla xam nga ni ngay jaamoo yàlla wala mu nekk koo xam ne ku rek lay mën a doon moo tax afa man yaalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ama ki nga benn mu doon koo xam ne xam na ne li ci yow mooy dëgg mu doon koo xam ne ku silmaxa la kon silmaxa googu mooy silmaxa xol xol bi daal kon làmp la war a nekk ci nit ki bu xam-xam bi dikkee moo koy leeralal ba fa mu jëm ci wàllu diineem mu mën koo xam su loolu amul nag nga xam ne xam-xam ko mi ngi mel ne koo xam ne day dox ci mbedd oto yaa nga fa pakk yaa nga fa yi kàmb yi sax nga fa te yorul ay bët yorul ku ko wommat muy dem noonu rek kooku lu dëpp mën naa daal ci kawam kii jëf nag ci wàllu diine wala mu di ca wax te xam-xamu sharia nekku fi lam nekk moo gën a garaaw moo gën a rëy moo gën a dangereux ki nga xam ne dafay dox ci ci mbedd mi te yorul ay bët te amul ko ko wama eh, ñetteel ba moo di ne xam-xam ci boppam muy xam-xamu diine dafay tax nit ki mën a ragal boroomam borom bi tabaraka wa taala nee na innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama boroom xam yi képp képp nee na ñoom ñoo mën a ñoo mën a ragal yàlla xam nga ne euh, innama ustaz abdallah euh, borom xam-xam yi luxa yi xam nañ ne innama buñ ko jiitalee kooku xasr la moo di ne ñi ragal yàlla ñenn rek la mën a doon ñooñu ñan la mu ne al ulama mooy ñi nga xam ne dañoo jàng ba xam dañoo xam seen borom borom bi tabaraka wa waxaat na ne inna alladina utul ilma min qablihi ida yutla alayhim yaxiruuna lil azqaani sujjada wa yaquluuna subhaana rabbina in kaana wacdu rabbina la mafcuula wa yaxiruuna lil azqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushuuca kon boobu aaya dafay fedd li bëri lam waxoon moo di ne ñi nga xam ne uutul ilma ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi ñooñu ñi ñi nga xam ne bu alquran wàccee dana leen jural ak ragal yàlla dana leen jural euh, ba waral seeni rangooñ sax di tuuru ci xam ne seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala la ñeenteel bi moo di ne ann allaha amara nabiyahu allahu alayhi wa min al ilm yàlla dafa digal ab yonentam mu ko mu dolli ko xam-xam ne ko waqul rabbi zidni ilma foo toll del wax ne yàlla dolli ma xam-xam ànd ak wax dëgg yàlla ab yonent xam-xam ci moom la yem ci doomu aadama yi ndax moom la yàlla di jox li mu bëgg mu jàll ci nit ñi waaye téewul mu ne ko del ñaan ma dolli la xam-xam moo tax euh, al qurtubi day wax ne fa law kaana shay'un أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن yastasidahu min al ilm porte bi nee na su fekkoon ne am na lenn loo xam ne moo gën a tedd fa yàlla leneen lu dul xam-xam nee na kon loola lay wax yonente bi ne ko ñaan ma ma dolli la ci loolu waaye ginnaaw lenn rek la ma sa tànn ne ko ñaan ma ko ma di la ko dolli loola kon dañuy xam ne mooy li gën a tedd ci mbir yi néewu ko ñaan ma ay alal ma di la ko dolli waxul ay kër waxul ay doom waxul lenn ci xeeti alal yi nga xam ne moo doon alal ya nit ñi doon damoo ci jamono yooya néewu ko ñaan ma ci lenn waaye ñaan ma xam-xam ma di la ko dolli la ko wax kooku day wane euh, makaana ak place bi nga xam ne xam-xam am na ko ci diine lislaam juróomeel ba moo di al ilmu afdalul jihaad jihaad bi gën ci jihaad yi mooy jihaadu xam-xam moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne walaw shina la baatna fi kulli qaryatin nadira fala tuti alkafirina wa jahidhum bihi jihaadan kabira nee na na nga jihaad bihi ci alquran alkarim mooy xam-xam bi na nga ci jihaad jihaad joo xam ne ju mag la moo tax al imam ibnu alqayim daf ne fa haada jihaadun lahum bil quraan nee na lii mooy jihaadi alquran mu ne wa huwa akbarul jihaadayni nee na jihaad yi am jihaad bi nga xam ne saytu la mooy jaasi ak jihaad bi nga xam ne jihaatu xam-xam la nee na jihaatu xam-xam bi mooy akbarul jihaadayni mooy jihaad bi gën a mage moo tax mu ne kooku mooy jihaatu munaafiquun yi nee na mooy jihaatul munaafiqiin ndax kat nee na munaafiquun yi nekkuñu woon di xeex ak jullit yi yor ay jaasi nekkuñu woon di xeex ak munaafiqoon yi yor ay jaasi dañoo àndoon ci biir jullit yi jaxasoo ci seen biir léeg-léeg jullit yi sax bu ñuy xeex ak seen i noonu ñoom ñu génn ànd ak jullit yi di leen jàppale te téewul borom bi tabaraka wa taala daf ne yaa ayuha nabiyu jaahid al kuffaara wal munaafiqiina waxlus alayhim ah kon jihaad bi nga xam ne moom la jëflanteeg ñoom mooy jihaadul xujjati wal burhaan maanaam taxawal lay wi ci seen kaw jihaati xam-xam noonu la doon jihaati ak ñoom gën na koo leeral xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na man jaa masjidi hada lam yatihi illa li xayrin yataallamuhu aw yuallimuhu fa huwa fi manzilati almujahidi fi sabilillah nee na képp koo xam ne ñëw nga ci sama jàkka ji dara indiwu la fi lu dul jàng fi xam-xam wala ngay jàngale fi xam-xam nee na yaa ngi nekk ci palaasu koo xam ne day jihaad fi sabilillah kon loolu lu màgg a màgg la ci sàkku xam-xam ñu xam ne e, daf ne masjid yi la wax waaye loolu nekkul xaas ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mboolem jàkka yi nga xam ne néegi yàlla lañ képp ku fa jóg dem sàkku ji xam-xam xadis bi nos la ci ne yow fii jihaad fi sabilillahi nga nekk su fekkee sa yéene sell na su ko defee bu jàkk yi jàllee nga xam ne ñooy néegi yàlla yi ñu ilxaaq ci bépp béréb boo xam ne dañ koo wut mu doon jàngu jàngukaayu xam-xam su fa nit ko jubloo di fa yi moo xam ab école lañ ko tudde moo xam turu daara wala weneen turu wuñ ko jox waaye bérébu jàngukaay la nit ko jóg jëm fa di sàkku ji xam-xam ngir yàllay kese kooka dañ koy yéegal ci darajay ki nga xam ne dafa sàkku ji xam-xam te defe ko ci jàkka waaye jàkka nag mooy maqaam bu njëkk bi ndax xam ngeen ne la fa yàlla def ci barke defu ko feneen sàkkoo fa xam-xam moo tax mu gën a barkeel nag sàkkoo fa feneen fu man a doon juróom benneel ba moo di ak attanafusu fi baslil ilm mu baax xëccoo dafa doon loo xam ne luñ tere la xeetu ki ñaanante sax ñeewante tax ci yeneen yi fi àdduna yi lislaam da ko sopput waaye nag bu dee ci xam-xam ak tasaare koog lu ca aju kook wàññeetul dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na laa illa fi snatayn ki ñaan daal su fekkee am na ñaari mbir rek ci la nit ki war a iñaanee boroom moroomam waaye ki ñaan googu nag dañ koy firee ñee ñeetaane ñeetaan nga ne ew waaye diw sàngam nee na ñaari mbir yooyu yii rek la laa xasada illa fi tnatayn rajulin ataahu llahu maalan fa sallatahu ala halakatihi fi lxaq bi ci jëkk mooy koo xam ne yàlla daf ko jox alal borom alal la waaye alalam jooju mu def ko fi sabilillah fu mu toll rek fu mu yëge projet boo xam ne projet l'islam taxaw na loo xam ne lii xam na ne l'islam la ci jëriñu mu def ci alalam nee na kooku day soo amee kuy ñeetaane wala muy iñaan kooku la war a ñeetaan ñaareel ba wa rajulin ataahu llahu alxikma fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha koo xam ne yàlla da koo jox xam-xam nee na moom lay jëfandikoo ci atteem waaye nee na da koy jàngale itam kon ñaar ñooñu ñoom ñooy njobbaxtanul ñi gën a kawe ci askan bi juróom-ñaareel bi moo di al ilmu wal fiqhu fi diin azamu minnatin manna allahu biha ala al abd xam-xam bu ànd ak dégg mooy xéewal gi gën a rëy ci xéewal yi fii ci àdduna ndax képp koo xam ne kat wërsëgale nañ ko xam-xamu sharia tam dégg ko na mu ko war a déggee di ko jëfee na mu ko war a jëfee kooku wax dëgg yàlla mooy ki am tawfiq fii ci àdduna yàlla na ko yàlla defal Euh, Muawiyatu bnu Abi Sufyaan radiyallahu taala anhu wala anhuma nee na dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ne man yuridi llahu bihi xayran yufaqihhu fi diin ku yàlla nar ci yow aw yiw nee na dana la déggloo diine yufaqihhu fi diin nag euh, firiwul li ko ñenn ñuy déggee defe ne mooy xam-xamu fiq rek maanaam nooy jàppeeg nooy woo rek nooy jullee loolu ma nga ca biir waaye dégg diine dafa gën a yaatu loolu dégg diine moo gën a yaatu mën a jàpp ak mën a julli ak mën a woor dégg diine la ci jiitu mooy génn ak réer nekk ci biir leer génn ak réer ci ñaari tomb yi ëpp solo mooy xam tawxid xam bokkaale jàpp ci tawxid sànni bokkaale xam sunna xam biddaa ba noppi jàpp ci sunna bàyyi biddaa loolu moom ku ko def même boo jàngul woon ay téere tax yow agsi nga xam nga faqahaka allahu fi diin ginnaaw yow xam nga tawxid jàpp nga ci mucc nga ci bokkaale xam nga sunna mucc nga ci biddaa kooka boroom xam-xam la kon euh, loolu mooy al fiqhu fi diin waaye su nit ki jàngoon téere yi ba mokkal lépp kat yor xam-xamul xalaal wal waaye téyewul boo ñëwee fekk ko ci biddaay wala nga fekk ko ci bokkaale ya kon kooka moom du borom xam-xam juróom ñetteel bi moo di ne bil ilmi takunu assalaamatu min laanatillah xam-xam moo mën a musal ci mu bokk ci ñi nga xam ne yàlla da leen a yàlla rëbb abu hurayra moo ñu ko nettali nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dikrullahi wa ma walaahu wa aalimun aw mutaallim nee na adduna lu ñu rëbb la lépp lu ci nekk li ñu rëbb la ba mu des tudd yàlla ak lu ci aju loola mooy mu ne ak wa aalimun ak boroom xam-xam aw mutaallimun wala koo xam ne dafay sàkku xam-xam ñooñu moom yàlla rëbbu leen kon nekk ci xam bi ci kër kër yi nekk ci tudd yàlla moo xam kër këri xam-xam ji dangay jàng wala dangay ngay jàngale boole ko bi tudd yàlla ca nam gën a yaatoo di jàng yàlla yooyu ka ca nekk mooy ki nga xam ne mucc na ci rëbb googu nga xam ne rëbb nañ ko àdduna ak li ci biiram juróom-ñeenteel bi moo di ne al ilmu maksabun lil ajri xatta maa niya maanaam ki nga xam ne am na xam-xam xam-xam boobu dana ko permettre ab yëpp mënut sax yi nga xam ne mënu koo def ci jaamu yàlla yi mu di ko yéene loolu xam-xam moo la ko mën a jox yéene googu mu koy yéene day tax day tax mu am yool ba la muy xam ne lu baax la te mu moom mu yéene ko kooku yëpp day am yool ba am nañ xadis bu mag fii boo xam ne da koy wone danaa ci romb rek romb bu gaaw mooy xadisu abi kabshat al anmaari nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett a ngi nii e, ñoo xam ne na ngeen ko garde ci xadis bi ma leen di wax na ngeen ko dégg bu baax a baax bi ci jëkk mu ne ma naqasa maalu abdin min sadaqa tomb bi ci jëkk sarxe nee na du wàññi alal sarxe du wàññi alal wala zulima abdun fa sabira alayha illa zaadahu llahu izzan amul benn jaamu yàlla boo xam ne danañ ko ci kawam ay lor mu muñ loolu lu dul yàlla dolli ko tiraanga ñetteel ba wala fataxa abdun baaba masalatin illa fataxa allahu alayhi baaba faqrin képp koo xam ne da ngaa ubbil sa bopp buntu yalwaan ubbil ko sa bopp nag mooy loruwoo ci da nga ko xool rek mu gën a yomb nga daal di koy dugg ci boobu nee na képp ku ko def yàlla dana la ubbil buntum ñàkk maanaam da ngay gën di ñàkk rek wala yaasu billah loolu la tàmbalee mu ne wa uhaddisukum hadisan fahfazuhu kon mu ngi dooru bëgg jublu nag ci li taxoon may wax nee na maa ngi leen di wax beneen xadis boo xam ne na ngeen ko garde lépp ci benn xadis bi la mu ne innama dunya li arbaati nafar adduna daal nee na ñeent a fi nekk ñeent ku jëkk ki nee na mooy ki yàlla war sa gale alal wërsëgale ko xam-xam yàlla may na ko alal may ko xam-xam nee na fa huwa yattaqi llaha fiihi rabbahu wa yasilu fiihi rahima ne alalam jooji ak xam-xamam boobi ci alal xam-xam bi ci lay ragale boroomam waaye alal ji ci lay jokke ak bokkam wa yalamu lillahi fi xaqan fa hada bi afdali almanazil nee na àq yàlla itam mu koy génne ci alalam jooji yi muy asaka yaag sarax yaag ya ko nuru nee ki yàlla may ñaar yooyu xam-xam bi ak alal ji ba noppi mu def ci yooyu yi mu ci def nee kooku mooy ci gën a kawe daraja ëllëg bi afdalil manazil mooy ki gën a kawe martaba kooku kenn la wa abdun razaqahu llahu ilman walam yarzuqhu maalan jaam boo xam ne it yàlla wërsëgale na ko xam-xam waaye wërsëgale wu ko alal waaye wërsëgale ko alal fa huwa saadiqu niya nee na kooku ku rafet yéene la yaqul law anna li maalan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa kon kooku mooy shaahidu fi lxadit nee na kookee nga xam ne yàlla da ko may xam-xam te mayu ko alal bu toogee ba wéet ak boroomam la muy wax mooy su ma amoon lu mel ne li diw sàngam mii am di ko def fi sabilillahi day kon danaa ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaar ñooñu day ñoo tolloo ab yool moom boroom xam-xam bay joxe parce que dafa am alal ak boroom xam-xam bi joxewul ndax dafa amul waaye yéene na nee na ñoo tolloo ab yool fa sunu borom tabaraka wa loolu xam-xam mooy tax nga xam ne kon li nga mënul nga di ko yéene xam-xam moo la ko mën a jox yeneen ñaar ñim ci teg nag Eh, ñoom ñooy ñi yées nee na wa abdun razaqahu llah razaqahu llahu maalan wa lam yarzuqhu ilman koo xam ne yàlla da ko jox alal waaye joxu ko xam-xam nee na muy làmbatu rek yataxabatu fi maalihi bi gayri ilmin nee na alal ja lu ko neex rek la cay def laa yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu jéemu ta xool luy tax a ragal yàlla seetul jokk ak bokk alal ja daal da ko yor di ko fooyee guddi ak bëccëg génnewu ca it xàq boromam nee na fa hada bi axbasil manazil nee na kooku mooy yées ñëpp place yor na alalam jurul jeex daal jii mu ta gëstu xam-xam jii mu ta gëstu diine yoonam nekku ci ma ngi koy xeexe dëgg sax wala ma ngi koy tasaare di ko yàqate kooku nee na mooy ki yées ñëpp ki leen ñeenteel mooy waajoo xam ne amu ci lenn faf amul xam-xam amul alal waaye lam doon yéene mooy nee na amoon alal ba di ko foyee comme ni ko waa ji di foyee laa xawla wala kon kooku amul alal ba noppi lam doon yéene ci alalam lu baaxut la moo tax mu ne wa abdun lam yarzuqhu llahu maalan wala ilman fa huwa yaqul law anna li maalan la amiltu fihi bi amali fulaan maanaam ku mujj kooku kon danaa ci def lu mel ne lu mu def mu ne fa huwa bi niyatihi fa wizruhuma sawa nee na kooku moom itam yéeneem lañ koy fay ñoom ñaar ñoo tolloo ñoo tolloo bàkkaar xadis boobu Cheikh Nasruddin Albani wéral na ko Tirmisi génne na ko eh, fukkeel ba moo di ne ndongo yi nga xam ne dañoo jóg sàkku ji xam-xam ngir yàlla hum wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy dénkaaneb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Abu Saïd al-Xudri radiallahu taala anhu ci xadis bu wér nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne sa yatikum aqwamun yatlubuna al ilm am na daal nit ñoo xam ne danañ ñëw fi yéen di sàkku si xam-xam mu ne fa ida raaytumuhum fa qulu lahum marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su ngeen leen gisee ngeen wax leen ne marhaban ci dénkaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñim nu dénkoon nu jàngal leen moo tax la àggale xadis bi daf ne wa atnuhum ñu laaj ki ko doon nett lan mooy wa aqnoohum mu ne allimuhum na ngeen leen teeru teeru bu rafet waaye na ngeen leen jàngal itam e, tomb ba ci mujj moo di loo xam ne kenn ku nekk yëg na ko moo di sharafu lintisaabi ila al ilmi sharafu lintisaab ila al ilmi askanoo xam-xam ci boppam dafay tiraanga ci nit ki kenn ku nekk da nga koo bëgg moo tax bokk na ci sharafu xam-xam ak tiraangaam moo di képp kuñ ko askane rek nga bëgg ca loola suñ ne diw saa nga borom xam-xam la day daal di bu ko waxee su ko waxut am na yëg-yëg bu mu yëg ne bëgg na ca loola donte moom ci boppam xam na ne amul xam-xam waaye buñ ne diw saa ngam xamul dara ak ku mën a doon dalay naqari donte xam na ne sax moom xamul lu bari waaye du tee nag loolu dana ko naqari kon loolu ci li lay won ci yëg-yëgu benn doomu aadama bu nekk moo lay won ne kon xam-xam am na teraanga boo xam ne kenn ku nekk da koy yëgal boppam. Eh, amma ñetteelu tomb bi nag muy fadlul aalim kooku ay tombam bari na moom itam dañ ci laal laal boo xam ne moo gën a gàtt ndax tam ni ngeen ko xamee waxtu mi ngi dem tànk-tànk ba ci jëkk ci ngëneelul boroom xam-xam kon noppi nañ ci ngëneelul xam-xam ci boppam waaye boroom xam-xam ann allaha mtanna ala anbiyaihi bil yàlla buy lim xéewal yim defal yonentam yi lu gën a bari rek xam-xam lay lay tudd wane ne moom moo leen xamal bokk na ci ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko wa anzala alayka alkitaba walxikma wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima yonente bi lay waxal nee na ko moo wàcce ci yow man maa wàcce ci yow ab téere jàngal la sunna xamal la loo xam ne xamoo ko woon kon ngëneelul yàlla ci kaw ci sa kaw ngëneel lu màgg la bi mu wàcc ci sa kaw kooku la wax yonentam alayhi salaatu wasalaam yonent yàlla yusuf nee na walamma balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa ilma wa kadalika najzi lmuxsinin nee na bi mu demee ba màgg moom yonent yàlla yusuf maa ko wàcc ci moom waxyu ak xam-xam nee na loolu ak fay la bu muy fayee képp koo xam ne ko rafetal la Muusa alayhi salaam nee na walamma balaga ashuddahu wastawa aataynaahu xukman wa ilma wa kadalika najzi lmuxsinin nam ko waxe woon ci Yuusuf rek bi mu demee ba màgg nee na moom it foofu lañ ko indilee waxyu indil ko xam-xam almasih alayhi salaam daf ne yaa Isa bnu Maryam udkur nicmati alayka wa ala walidatik id ayyadtuka bi ruuxi alqudsi tukallimu annaasa fi lmahdi wa kahla wa id allamtuka alkitaba walxikmata waltawrata walinjil nee na isa alayhi salaam na nga fàttaliku xéewal yi ma la defal yépp waaye nag bul fàtte jàngal gi ma la jàngal wàcce ci yow wax yu wàcce ci yow téere jàngal la tawraat ak injil kon tomb bi jëkk ci maqaamam borom xam-xam moo di yàlla di tagg ay yonentam taggewu leen lu dul xam-xam ci aay yooyu yi nga xam ne ñoom laa tudd ñaareel ba moo al ulamaau warasatu al anbiya alladina amara allahu taala bi sualihim ñi nga xam ne ñoo ci kaw suuf ñooñu ñooy borom xam-xam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ne al ulamaau warasatu al anbiya yi ñoo wuut yonent yi mu leeral loolu mu ne ndax yonent yi ku leen di donn doon ne wala alal waaye ñoom xam-xam lañ fi bàyyi képp koo xam ne jël na seen ndono loolu kon jël na seen ndono eh, ba noppi borom bi tabaraka wa taala comme ni ma ko waxee daf ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun laaj leen ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi su fekkee xamu leen kon bu fekkee ne wér na ne borom xam-xam yi ñoo wut yonent yi ñaareel bi boroom bi tabaraka wa taala nee na kuy laaj diine na nga laaj ñooña kon ñooñu am na place bu mag boo xam ne borom bi tabaraka wa taala jox na leen ko ci diine ñetteel ba moo di ne al ulama hum siqaat ñi nga xam ne daal ñoo mat ay témoins ci kaw suuf ci sharia nga xam ne kuy dëgëral sa mbir ñoom nga war a dellu ñu dëgëralal la ko ñooñu ñooy borom xam-xam yi ndax suñ borom tabaraka wa taala moo ko def moo ne shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim nee na yàlla ci boppam seede na seedeel na boppam ne moom de moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko ak kan nee na ak malaayika yi ku leen ñetteel mu ne borom xam-xam yi kon loolu lu màgg la loo xam ne boppam la jiital teg ci malaayikaam yi teg ci borom xam-xam ñu bokk ñoom ñëpp témoin ne laa ilaha illallah kon mooy wane ne borom xam-xam yi day fa leen dugal fu màgg a màgg la loolu day wane seen martaba itam ñeenteel ba moo di madixullahi taala lil ulama tagg gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf koy tagg borom xam-xam yi borom bi nee na bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilm alquranul karim nee na ay aaya yu leer naññi la ci dënni boroom xam-xam yi ci dënni boroom xam-xam yi kon loolu tagg bu màgg la bu fekkee ne téeréem bi ak aaya yu leer yooyee <coughs> waxul ne dafa nekk ci e, téere yi wala dafa nekk ci këyit yi wala ci nàngam waaye ci bu ni boroom xam-xam yi kon kooka ak tagg la ci boroom xam-xam yi borom bi tabaraka wa juróomeel ba xassa ahla al ilmi wal iman bi rafi darajatihim borom bi tabaraka wa taala dafa yëkkati seeni daraja yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ñi nga xam ne boole nañ gëm yàlla boole ko ak xam-xam yàlla nee na seeni daraja yëkkati na ko jàpp naa ne yëkkati suñu borom tabaraka wa taala lu mu yëkkati lu ne lu kawe lay doon tey aay bi dafa làmboo latifa bu bu doy waar moo di su ne woon daraja benn daraja doy na bu ne woon ñaar doy na waaye dara jaat la wax nga xam ne lim ba kenn xamul ñaata la kon borom bi tabaraka wa taala yëkkati na seen i daraja moom e, nga xam ne borom xam la it laa yanqati'u amaluhu bi mawtihi ak faatoom du tax xam-xamam dagg moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> nee na nit ki bu génnee àdduna ab yool duutu ko mën a fekki fa mu nekk maanaam jëfam jëfam dagg na ba des ñetti mbir xëy na daal sadaqa jaariya mooy benn sarax boo xam ne dafa ko fee bàyyi woon tam doon sarax buy sax comme koo xam ne dafa gasoonu teen teen ba nekk fa rek continuer di dem wala dafa tabax jàkka jàkka ji julli ji nekk fa rek di ci julli kooka moom yool ba dana ko fekk fa mu tëdd aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam boo xam ne nit ñaa nga ciy jariñu mën naa doon lu mu jàngale woon nit ñi continuer di ko jàngalewaat ñu ki jàngaloon sax muy jàngalewaat moom day am ca loola su ko defee kooku ci xam-xam bi la bokk wala xam-xam bu mu bindoon nit ñi jóge fi bàyyi ko walay cassette walay CD yoo xam ne nit ki mën na ko faa bàyyi gannaawam nit ñi di ca jariñu loolu da koy fekki wala wala din saalihin yad'u lahu wala doom ju baax yoo xam ne da ko fee bàyyi mu di ko ñaanal kon mën nañu gàttal ci tomb yooyu dugg ci eh, beneen bunt boo xam ne bu am solo la mu di gàkk yi nga xam ne ki jóg di sàkku ji xam-xam wala mu dem sax ba am boroom xam-xam ba noppi ba nekk boroom xam-xam ba noppi ay gàkk mën na koo gaar yoo xam ne mën na koo yàqal ndax nit ki kat du doy rek mu xam ngëneelul nangam ba am ko ba dajale ko ba noppi su ko dajalee di xoole ba mu yàqu war nga góor góorgóorlu ba li ngay am nga nga aar ko parce que même ñiy liggéeyal seen àdduna sax seen misaan ci loolu lay dox moo di fooy jaar ba fàggu alal ji gannaaw boo xamee ne alal lu baax la bi nga ko faggoo ba dajale ko ba noppi la ca des mooy fooy jaar nag ba teg ko ci yoon ba du yàquwaat waaw nga garde ko kon yow mi xam ne xam-xam am na ngëneel boroom xam-xam am na ngëneel lu màgg ba góor góor lu ci sàkku xam-xam moo xam amagun nga wala amagoo li nga ci am bari na bariwut loolu nga ci amagus néew koy jaar ba garde ko ba du yàqu mu am nag ay gàkk yoo xam ne day yàqal nit gàkk yooyu bi ci jëkk moo di al rëy rëy musiba la moo xam ne day yàqal boroom xam-xam day yàqal itam taalube maanaam ci sàkku ji xam-xam rëy nag ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee moo di bañ dëgg bañ koo nangu lu tax parce que ki yor dëgg ci maa ko mag maa ko ëpp xam-xam maa ko fi jëkk fi laa nekkoon démb bi ma nekkee ci lii moom juddoogul sax rëy ku mel noonu bokk na ci yi nga xam ne day gàllankoor nit ki moo tax gàkk boobu eh, ñu bari daf leen a yàqal seen diine sax am na ñoo xam ne sax rëy googu moo leen tee dugg ci lislaam faf moo tax yonent borom bi tabaraka wa taala wax na ko nee na innahum ida qiila lahum la ilaha illa allah yastakbiruun <coughs> suñ leen woo ci tawxid nee na ñuy ñuy rëy rëylu ñuy rëy rëylu kenn ku nekk xam na ne bàkkaar bi njëkkam mooy yàlla ci kaw suuf mooy bàkkaar bu rëy ndax borom bi tabaraka wa taala bi mu digalee Euh, iblis mu bokk ca malaayika yi ne leen sujjóotal leen aadama dañoo sujjóot moom fa aba wastakbara mu lànk wane ne man ku rëy la ku laa wane ne man maa ko gën euh, moo tax euh, suleymaan alayhi salaam ba muy woo balqiis ak nitam ña daf ne alla taalu alayya watuni muslimin bu leen rëy kaay leen dugg ci diine ji ma leen di woo banu israil suñ borom tabaraka wa taala nee na leen afa kullama jaakum rasulum bima la tahwa anfusukum fariqan kadabtum fa fariqan kadabtum wa fariqan taqtuluun fa fariqan kadabtum wa fariqan taqtuluun afa kullama jaakum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadabtum wa fariqan taqtuluun yéen banu israil ndax nii ngeen mel mu di saa boo xamee ne bi yonent ci ñëw na saa bu ab yonent ñëwee di leen woo ci loo xam ne wuute na ak seen ba banneexu bakkan ngeen di rëy rëy takbartum nga xam ne lay résultat ba mooy da ngeen di rey ñenn ñi ñi ci des ngeen weddi leen kon rëy ci boppam doon na loo xam ne dafay dox diggante nit ki ak nangu li nga xam ne mooy dëgg moo tax dañuy wax ne képp koo xam ne nangu naa jël dëgg ci ku ko gën a suufe moo xam gën koo suufe ci ci ay at gën koo suufe ci daraja léeg-léeg sax gën ko suufe ci askan mu nangu koo jëlee ci moom ñu ne kooka day doonut koo xam ne ku rëy la kooka ku woyof la Ibnu Uyayna li wone ne rëy ci musiba yi gën a mage ci la bokk nee na man kaanat maasiyatuhu fi shahwatin fa arju lahu tawba nee na daal képp koo xam ne ak mooy yàllaam moom ibnu Uyayna mooy wax Sufyaan nee na képp koo xam ne ay mooy yàllaam ci bànneexu bakkan yeeg yu mel noonu ca la jëm nee na kooku yaakaar naa ne moom yàlla mën na ko defal xéewal mu tuub waaye man kaanat maasiyatuhu fi kibrin fa axsha ala saaxibihi llaan fa inna iblisa aba mustakbiran fa lu'ina nee na ki nga xam ne nag dafa ak mooy yàllaam dafa jëm ci gri jàpp ne moo gën ñëpp nee na kooku ragal naa ne moom fa jëm mooy ñu rëbb ko ndax iblis bi nga xam ne dafa rëy dañ koo rëbb moom kon rëy duurut loo xam ne lu nit ki war a melokaano la taalibul ilmi dafa war a nekk koo xam ne ku woyof la ci sàkku xam-xam comme gis ku ne jàpp ne tànn nga ko ci dara doonte mat na la bàyyi wala maam sax mu topp la ba loolee nga ko tanee mu am ko ci yow saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ajmain noonu lañ doon dundee ñaareel bi mooy xasadul aqraan ki ñaanante gi faral di am ci diggante ñoo xam ne dañoo tolloo dañoo bokk ak maas su ñu waxee bokk maas waxuñu bokk di bokk tolloo ay at waaye bokk di dundandoo moo tax ñuy wax ñaare nit ki néew na néew na muy jariñu ci koo xam ne dafay dundandoo ak moom lu bari danga koy seetlu ci nit ñi nit ñoo xam ne dañuy dund daanaka duñu am soxla ci ñoom waaye bis bu faatoo nga dégg ñu daal tàmbali di wax ci moom ay ngëneelam yu mel noonu ndax xam nañ ne bu boobaa ak gam-gam le amatul seen diggante moom dem na jeex la boo yëkkatee dara jaame duutu la wàññi dara kon mën ngaa wax ci moom loola neex waaye jamono yi muy dund ki iñaan ragal na ne su ko feeñalee rek boo wutul kooku dana ko effacé moom kenn dootu ko gis kon euh, iñaan kooku dafa doon loo xam ne lu mat a wattandiku moo tax al imaamu dahabi day wax ne jarxul aqraani yutwa wala yurwa maanaam loolu ci ci bor même borom xam-xami xadiis yi njaaxu bi yu mel noonu dem na ba lenn ci ñoom dal leen moo di mën a wax ci beneen borom xam-xam boobu loo xam ne jam-jam lay doon ci moom fekk la nga ci jublu mooy daaneel ko suufeel ko moo tax al imaamu zahabi mu ne bépp jam-jam boo xam ne daa jóge ci nit jëm ci ku muy dundandool nee na kooku dañ koy suul waaye kenn waru koo nettali sax yurwa wala yurwa dañ koy lem rek sànni àll ba waaye kenn waru koo waru koo nettali kenn ku nekk xam na loolu ay lor yu mag a mag a mag juddoo na ci defe naa ne lu bari ci yéen <coughs> yàgg ngeen a dégg qissa bi doxoon diggante eh, Muhammad ibnu Yahya az-Zuhli ki nga xam a aalim bu mag la woon ci Xurasaan ak al imam Muhammad ibnu Ismail al Buxaari eh, al Buxaari dafa génn jànge xam diir bu yàgg dëkk yépp mu dem fa ba siwaat ni dëkk maru ci Xurasaan nga xam ne mooy seen dëkk euh, Muhammad ibn Yahya mooy aalimu dëkk bi mooy borom xam-xamu dëkk bi bi mu yëgee ne Buxaari day ñibb si mu woowaa dëkk bépp ne leen ah suñ doom day jàngi woon na te day ñibbi si ñëw leen ñu teeru ko ñu génn teeru ko ni ñuy teeroo buur moom Buxaari kenn ku nekk xam ne Buxaari fi mu àggoon ci xam-xam yi jéggi na yéeme na yéeme na biñ ko teeroo ba mu dugg ci dëkk bi ci ëllëg si Muhammad ibn Yaxya az-Zuhli ñëw ne ko kaay toog ci sama sees di jàngale loolu lépp teraanga la ju baax wax dëgg yàlla mu toog jàngale mbooloo mi ñëw toog déglu ko jëlee ci moom ci diir bu gàtt ci xam-xam loo xam ne ci bis boobu mosuñu koo déggee ci Muhammad ibn Yahya bisu ñaareel bi mu ne ko defaatal noonu bisu ñetteel bi nag mu ne ko da dem ca koñ bële man ma continuer ci sama chaise ci même jàkka ji naka mu dem foofa nit ñëpp bàyyi ko fa dem ci Buxaari taalibeem yi ko gënoon a jege dem ba mu def ñetti nit wala ñaar kee nag bis bu set mbooloo ma di gën a tolli foofu fi la nit mën a defaroo ci wàllu xol wala bu ñàkk a defaroo bi loola xewee Muhammad ibn Yahya az li loolu tàmbali doy waar te ñi ko wër moom it li ñuy néew néew ñu ngi ñu ngi yàq mujj am ci ñoom kenn koo xam ne dafa jëw toog ci jotaayu Buxaari di déglu pour ba fay jëlee loo xam ne dana ko mën a ñaawal te jamono yooyu ñu ngi nekk ci jafe-jafe yoo xam ne li ñu doon tudde mixnatu xalqil Qur'an nga xam ne mu'tazila yeeg caaw li lu jëm ci xalqul quran bu ñu ko tuddee rek ñu ne ko ahlu bidaa la mu dem laaj buxaari benn laaj ne ko hal lafzi bil qurani maxluuq sama lafz bi may wax man su ma dee jàng alquran ndax lafz boobu maxluuq la wala déet buxaari ne ko yow sa lafz maxluuq la ndax yow maxluuq nga wax na dëgg mu dem ci Muhammad ibn Yaxya Zuhli ne ko wax na waxi waa bidaa wax na waxi waa biddaa parce que nee na lafzul quran maxluuq te loolu ak salaf mosuñoo wax sax ci bunt boobu kooka ñëw ci Buxaari laaj ko mu expliqué ko ñu gis ne daal ñoom li occasion la ñu tàmbali tasaare ko ci nit ñi ñu ne waa ji tàbbi na ci biddaa wax a wax ba nga xam ne li ko waroon ci mbooloo ñëpp dañoo daw sori ko loolu doyul ñu rafu qadiyaam yóbbu ko ci xaakim bi ne ko kii kat moo waa biddaa yi ñoo bokk li ñuy wax buur euh, bi génn décret ne ko léegi bul jàngaleeti ñu tere ko mu jàngale noonu lañ tooge ba niñ waroon a jariñoo ci al imaamu Buxaari jëriñoo wuñ ci mu delluwaat ci dëkku kawam ba nga xam ne fa la jóge woon toog ko nekk ci ay téeréem ba yàlla moom ko mu wuy ji boroomam kon xoolal loolu mu doon nag loo xam ne lu day waar la parce que euh, diggante bi fekk na Buxaari taalif na téeréem bi ba noppi lu bare bari nag jëli na ko ci Muhammad ibn Yahya az-Zuhli muslim moo doon taalibe Buxaari bi ko gën a jege bi ko gën a jege muslim ñëw ci moom ne ko waa ji li mu def kii maandoo li lay won Buxaari ak sellam ak defaroom muslim ne ko il faut xadis yi nga jële woon ci moom ci sa téere bi dama koy dindi Buxaari ne ko duma ko dindi ndax wóor na ma ne moom ci boppam boroom xam-xam la xadis yi jàngale da koo mokkal lii ko dal ci wàllu xel wàllu xol kooku ràggu xol la boo xam ne meneen mbir la bokkut ak xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muslim daal ne ko man benn xadis yi nga jële woon ci moom nga dindi ko wala yéen ñaar ñëpp danaa leen bàyyi te it su ma leen di bàyyi yow itam xadis yi ma jële woon ci yow ci sama téere dama koy dindi maanaam duut ma ko jaaree ci yow muslim ku tàngala woon ku naqari deret la ala kulli xaal la doon résultat bu mooy loola moo mujj xew Buxaari xëy na mbir mu moom it diis na ci moom ba ji na mënatu la wax Muhammad ibn Yahya az-Zuhli mënatu koo tudd ci téere bi ci tuddinu mel noonu waaye day doyloo rek Muhammad moo tax ci saxiixul Buxaari foo fekk xaddasani Muhammad te waxul mu doon kooku mooy Muhammad ibn Yahya az-Zuhli Muslim itam bépp xadis boo xam ne da koy woon ci Buxaari wala mu jële ko ci Zuhli ci téereem bi mu dindi ko seet beneen cheikh boo xam ne ci moom la ko dégg mu jaarale ko ci kooka waaye taalif nag téeréem ba mu jeex tudd ci Buxaari ànd ak ne ñëpp xam nañ ne muslim Buxaari la taxool lu mu jàng ci cheikh bu ne na ko ci Buxaari ba lenn ci borom xam-xam yi Ali ibnu Madini day wax sax ne lawla al Buxaari ma zahaba muslimun wala jaa su dul woon Buxaari muslim kenn du ko xam maanaam du dem du dikk ànd ak loolu meram tax na mu génn téere loolu lépp da lay woon fitna bi nga xam ne xasadul aqraan loolu lu mat bàyyi xel la mbokki jullit yi moo di lii dox sa diggante sa mbokki jullit mu ngeen bokk di dund moo xam borom yi xam-xam ngeen moo xam ndongo yi nekk ci yoon xam-xam ngeen moo xam da ngeen bokk di liggéey dend sax ci ay place aqraan bi day ñëw ba ci foofu ñu ngi wax ne bokkoon ne ci jikkooy as-salafu saalih ñaari nit dañ daan ubbi place kii ñëw nit jënd ci moom jënd daal jëndaat keneen ñëw bëgg a jënd mu ne ko demal nga jënd ci kii ndax ci subaak léegi kenn jëndagul woon ci moom melokaan yooyu xol yu sell yooyu yu rafet yooyu loolu jaadu nañu delloosiwaat ko ci xel yi kooku wute nag ñoo xam ne boo taxawee ñëpp daw wutal ñii kii ne fii la kii fii la day mujj doo xam sax looy jënd kenn ku ne jàpp ci sa loxo ne la kaay fii kon yooyu nga xam ne nit ñaa ngi koy dund ci xol yi jéem koo raxas ba mu defaru yëg ne wërsëgu àdduna jërul yenn yi daraja ci boppam jarul yenn yi nit ki nit dong la boo xam ne dafa juddu comme ni doomu aadama yi di juddoo te fii fi àdduna amut lenn lu mu fi mën a jëlee mu koy jariñ ëllëg lu dul ragal yàlla ak jaamu yàlla bu ëllëgee day faatu dañu gas sax ba mu fóot rek suulaat ko fa daal di maasale delluwaat ca ittee comme que nag kenn ku ne xam nga ne fii nga tàmbalee fii ngay jaar te fii nga jëm te lu coow li bari bari ak dara ji jeeg alal jeeg nguur géeg yépp noonu dong moo ciy mujj kon diggante nag lu jaar di rëy luy wane ne yow dangay ngay wan nit ñi ne leen maa leen gën loolu moom amut ci diggante bi kon xol yi jéem koo rafet li ñu tudd tazkiyatu nafs lu jaatul maanaam sellal ko bokk na ci yi nga xam ne it ay gàkk la yu mat a wattandiku moo di ak tasadduru qabla taahul daal di bëgg a jekki-jekki rek fëll nekk benn imaam te fekk àgg ko foofu Buxaari ak Muslim dañu <coughs> dañu génn benn xadis boo xam ne Abdullah ibn Amr ibn al moo ñu ko nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla buy dindi xam-xam du jékki-jékki rek raxas ci xoli doomu aadama yi waaye nee na su xam-xam di jóge ci xeet wi boroom xam-xam yi ñooy faatu nee na suñ faatoo ba boroomi xam-xam desatu fi walla bareetul nit ñi dañuy wut ay njiit yoo xam ne ñu réer lañ maanaam ñu xamut lañ ittaxada annaasu ruusan juhaalan fa suilu fa aftaw bi gayri ilmin fa dallu wa adallu nee su boobaa dañ leen di laaj te suñ leen laajee it seenu ragal yàlla àggut ci ñu naan xawma luñ leen laaj ñu tontu nee na su boobaa ñëw ña dañuy réer réeral nit ñi xadis bi bu koy xool di settantal di gis li xeet wi di dund tey da ngay tiit da ngay tiit soo wéeteeg sa bopp xalaat sa digganteeg sa borom da am njàqare ci ne nit ñi ñi ngi dund li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax déglul tey média bi ñi nga xam ne am nañ fiti toog ci rajo yi ak télévision yi tey di wax ci turu diine di ubbee laaj yi di leen jóge joor ak càmmooñ laaj bu ñëw ñu tontu ko ñooñu wax dëgg yàlla da nga ci biir yoo xam ne yow ci sa bopp da ngay tiit te yëmut ci loolu demal ci internet bi demal ci télévision yi nga xam ne ay seen satellite yi nga xam ne international da nga gis boroomi xam-xam yi toog ñu tudde boroomi xam-xam lay wax sax di fatwa ci mbir yoo xam ne xamuñu ci dara dara da nga gis koo xam ne docteur nangam lañ koy tudde di wax ci nangam ndekete kooku ci boppam docteur vétérinaire la muy wax ci charia pour ñu lëndamal nit ki rek pour ñu ne ab docteur bu jàng nangam ak nangam la ànd ak ne du caagane diplôme bi mooy xam-xam bi loolu faaw ñu xamaale ko nit mën naa bañ a am benn diplôme di nekk borom xam-xam bu mag a mag a mag waaye genn ñeme ci yi ku xamul ak ci xam-xam mooy am fit wu tol noonu kon mbir ngi foofu moo xam ne mu mat a bàyyi tol juróomeel bi mooy adamu al amali bil maalum nit ki lim xam mu ñàkk ko ba xam ba pare bañ a jëf kooku moom musiba la al imaamu Shaatibi dafay wax ne ulama usuu hum alladina yaalamuuna wala yaamaluun xam-xam yi yées boroom xam-xam yi yées ci boroom xam-xam yi nee na mooy ñi xam ba noppi duñ jëfe mooy ñi xam ba noppi duñ jëfe euh, loolu lenn rek ci gàkk yi la kon tomb bi nga xam ne ci lañ bëgg a jaar léegi nii mooy kayfa alaja salaf hadihi al afat gàkk yooyu nan la ko salafu saaleh saafara ñoom ci seen bopp bu fekkee xool nañ gàkk yi ma fi tudd yëpp ak yeneen yu ma tuddut sax dañuy gis ne fa muy dellu lépp mooy bu jëkk ba réy nit ki réyal boppam yëkkati boppam ba àggale ko koo xam ne àggu fa jox boppam ay melokaan yoo xam ne àggu ca la chaque na rëy googu nga xam ne bu ñëwee ixlaas day dem bu ñëwee jikko yu baax day dem kooku ci yiitee jariñu ci xam-xam ci la bokk ndax xam-xam bii ku rëy mënu ca jariñu borom bi nee na sa asrifu an ay an an ayati alladina yatakabbaruun samay aaya samay kéemaan samay dalail yi nga xam ne moom la nit ki di sukkandikoo ngir mën a am xam-xam nee na kooku duma ko jox kuy rëy rëylu loolu moo tax asalafu saalix seen saafara su mag siñ jëfandikoo ba defar seeni xol defar seen bopp mooy fexe ba li ñu tudda rëy moom ñu jële ko ci seen bopp ba mu tàkk ak fexe ba safaan ba muy woyofal seen bopp ak fexe ba fuñ toll di rek leen ceeg seen bakkan ba réy moom yi du am aw yoon moo yam àndal ngir mën a dellusiwaat ci seen xol loola lañ jëfandikoo moo tax su ma la ci doon jox ay misaal ci loolu euh, al imam al xasan al basri rahimahullah daf daan toog di yett boppam di wax ne ya nafs tatakallamina bi kalaami alsaalixin alqaanitin alaabidin وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين wallahi ma hadihi sifatu almuxlisin mu ne yow sama bakkan bi yaa toog fii di wax waxi nit ñu baax ñi waxi jaamukati yàlla yi ba noppi di jëf jëfi ñu sàggan yi jëfi kàccoor yi jëfi njistalkat yi lii day du melokaani nit ku baax danaan toog ak boppam di wax loolu ba nit ñi ko jege di yëg ne moom day waxtu di wax loolu boppam te du yëg sax ne nit a ngi koy jëlee ci moom al imam sufyan althawri rahimahullahu nee na kullu cheyin azhartuhu min amali fala audduhu cheyan li ajzi amsalina an al ixlaas ida raahu nnaas nee na lépp loo xam ne def naa ko ci xeeti mbaax wala jaamu yàlla mu feeñ mu feeñ ba nit ñi gis ko nee na loola jàpp naa ne zéro la lu tax nee na parce que nun ñu mel ne nun danoo lot ci lool def loo xam ne nit ñi dañ koy jis ba noppi yàlla tax nit ñi dañ koy gis ba noppi yàlla tax waaw ñoom ñooñee su fekkee ñoo lott ci loolu kon nun moom fan jëm al imam al fudayl ibnu ibnu iyad nee na moom ci boppam sax daf daan def ida kaana allah daf ne ida kaana allahu yasalu alsaadiqina an sidqihim misla ismail wa isa alayhi salaam fa kayfa bilkaadibina amthalina mu ne bu fekkee ne yàlla dafay laaj way dëgguñi dama yasalu saadiqina an sidqihim ñu dëgguñi daf leen di laaj seenu dëggu mu ne nun ñu dëgguwul nii kon nun suñ jëf nan la ñuy def suñ digganteeg suñ borom al imam Abu Ubayda Omar ibn al-Musanna rahimahullah nee na man araada an yakula alxubza bililmi faltabki alayhi albawaaki koo xam ne da ngaa jóg sàkku ji xam-xam fekk li ko tax a jóg mooy mburu moo lekk mburu moo lekk moo tax nga sàkku ji xam-xam nee na kooka moom su amee ñu koy jooy tooy ba ñu tàmbali koy jooy léegi maanaam daf la bëgg a wax ne xam-xam ci boppam yàlla dafa war a tax waaye damay sàkku ji xam-xam ngir lu ma dundee bu fekkee foofu rek nga toll nee na ñi lay jooy sooy ba ñu tàmbalee jooy léegi moo tax al imaamu zahabi day wax ne jaadu na ci boroom xam-xam mu bañ wax li fii du fexe ne ba sellal yéeneem digganteem ak boroomam fa in ajabahu fa in ajabahu kalaamuhu falyasmut su fekkee dem na ba yéen ne moom kala waxam jéen koy bëgg a yéem moom ci boppam mi ngi bëgg na naw boppam nee na na tëy làmmiñam su boobaa wa in ajabahu samtu falyamtik mu ne su demee ba jàpp ne daa war a noppi nee na su boobaa na wax wala yaxtarru an muxaasabati nafsihi fa innaha tuxibu zuhura wa sana nee na fu mu toll nay nay réglenteeg bakkanam bi ndax bakkan bi nee na dafa bëgg di feeñ dafa bëgg itam ku ko tagg awn ibnu imara rahimahullah nee na dama dégg benn bis hisham ad-dastawai rahimahullah mu ne wallahi ma astati'u an aqula inni dahabtu yawman qattu atlubu alxadisa uridu bihi wajha allahi azza wa jalla nee na Hicham Tastawaay daf ne man de mënumaa wax ne mënumaa wax ne am na benn bis boo xam ne damaa xëy di sàkku ji xam-xam te fekk yàlla kesee tax kon kuy waxal loolu sa bopp nit dañu ko dégg déggul li ci al al imaamu Zahabi li mu ci teg bu ne wallahi wala ana Zahabi mooy wax de. mu ne ak man mii faqad kaana ñu ngi nekk li ñu jëkk ñe nañ meloon nee na faqad kaana salaf yatlubuna al ilma lillahi fa nabulu nee na ñu jiitu woon dañ daan sàkku xam-xam ngir yàlla loolu moo tax ñu àgg fañ àgg wa saaru a'immatan yuqtada bihim ñu mujj nekk ay njiit yoo xam ne ñooy royukaayu doomu aadama yi mu ne wa talabahu al yawma qawmun minhum awalan laa lillahi wa xasaluuhu tumma staqaamu nee na gannaaw bi nag am na ñoo xam ne sàkku ji nañ xam-xam yàlla taxul woon waaye xam-xam dikkal na leen ñu mujj jubbantiku ñu mujj jubbantiku wa xaasabu anfusahum nee na fa jarrahum al ilmu ila al ixlaasi fi asnaai tariq nee na ñooñu tàmbalee wuñ ko woon waaye dem nañ ba ca digg bi xam-xam feeñu leen jubbanti leen ñu dog yoon wa kama qaala mujahid talabna hada al ilm wa ma lana fihi kabiru niya summa razaqana allahu niyata baad nee na mujahid daf ne noonu bi ñu daan sàkku xam-xam bii eh, bi ñu ko daan def suñu yéene doonul woon yéene dara waaye nag yàlla daf na wërsëgal yéene gannaaw bi laha bi mooy wax ba tey nee na am na ci ñoom it ñoo xam ne dañ ne talabna hada al ilma li gayri illahi fa aba an yakuna illa lillah sàkku nañ xam-xam bi te fekk yàlla taxuloon waaye xam-xam moom nee na nanguwut a doon lenn lu dul yàllay kese zahabi nee na fa hada aidan xasan loolu lu baax la maanaam nit ki bi muy tàmbali yéeneem melul woon noonu waaye dem na ba mu yàgg yéene ja mujj baax nee na loolu itam tawfiq la waaye la ca tegu nee na qawmun talabuhu bi niyatin fasidatin li ajli dunia nee na am na ñoo xam ne dañoo jóg sàkku ji xam-xamu diine te fekk àdduna kese moo tax wali yusna alayhim ngir ñu tagg leen fa lahum ma nawaw nee na ñooñu lañ yéene dong la ñuy am moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ko ci xadis bu wér mu ne man gaza yanwi iqaalan fa lahu ma nawa koo xam ne dafa dem bi jihaad bi sabilillahi di xeex nekk ci wa fekk lam ca bëggoon mooy benn buum goo xam ne su gañee noon bi man ko caa jële buumu gëleem bu ñu koy yeewee loolu dong la soxla woon nee na kooka la mu yéene dong lay am boo am leneen kon raxab yoo xam jooju xaw naa gudd waaye fam ko daaneele rek rahimahullahu taala tomb boobu laay mujjee nee na wa baaduhum ijtaraa ala allah nee na am na ci ñoo xam ne dem nañ ba seeni jéggi dayo ci xam-xam àgg na ci ñu teg ay xadis wala ñuy wax ci xadis loo xam ne luñ xamut la nee na ñooñu yàlla da leen a toroxal fii ci àdduna bi àllaaxira daataan ñëw mu nattoo leen seenu xam-xam dem kooka e, ëllëgam diisu ci rafet njort nee na ñii mu tudd ñëpp nag kenn ku ci ne solo na xam-xam boo xam ne bu bari la wa tadallau minhu fi ljumla nee na kenn ku ci nekk am nga ab cër ci xam-xam waaye nag nee na fa xalafa min baadihim xalfun bi an naqasahum fi lilmi wal amal am ñeneen ñu ñëw seen gannaaw ñoo xam ne nag ñu jëkk ñooñu li ñu doon bon bon mooy yoroon nañ xam-xam bu bëree bëri waaye jëfewuñ ko amuñu ci benn ittee am ñeneen ñëw gannaaw bi nag ñoo xam ne seen xam-xam manqué na ba pare jëfuñu ñu ne wa talaahum intamu ila alilmi fi zahir walam yuqtinu minhu siwa nazrin yasir mais am ñeneen ñi ñëw nag gannaaw bi ñoo xam ne dañoo askanoo xam-xam rek waaye fat xamuñu daaw nee na awhamu bihi annahum ulamaau fudala nee na loolee ñu yor ci as xam-xam tuuti ci lañ ndaxee nit ñi ba wan leen ne ñoom boroomi xam-xam yu mag nee na musta dem ci xeli ñooñu ñuy xalaat sax ci lu jëm ci sàkku lu jëm ci ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala ci xam-xam nee na ñooñu dañoo mujj doon ñoo xam ne ñooy gàkkub xam-xam dëgg dëgg dëgg nee na fa ca waay mën a yem ca ñooña gaayatul mudarrisi minhum gaayatul mudarrisi minhum an yuxassila kutuban musammanatan yaxzinuha wa yanduru fiha yowman ma nee na fa mu mën a yem daal pour ñu ne borom xam-xam la mooy mu dajale benn bibliothèque bu mag boo xam ne daf koy def ay téere ba mu rafet nee na du ñàkk benn bis sax xëy na jombut mën na caa ubbi benn téere xool ko maanaam foofu la euh, relation tolloom digganteem ak téere yu bari yooyu nga xam ne moom la dajal waaye nee na même bu ko ubbee fa yu saxifu maa yuriduhu wala yuqarriruhu nee na téere yam teg la muy rafet rafet bu ci ubbi woon benn téere di ko jàng sax mu ngi cay jàng benn jumla te du ci juum mu teg ci ne fa nasalullah annajaata wal afwa kama qaala baaduhum ma ana aalimun wala ra'aytu aaliman nee na ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq nee na moom Dahabi daal dafay wax comme li benn borom xam-xam wax mu ne maa raaytu aaliman man gisuma maanaam maa ana aalim man du ma borom xam-xam wa maa raaytu aaliman te gisuma it borom xam-xam kon su fekkee ne al imaamu Dahabi nga xam ne ñooñu mooy montagne xam-xam yu mag yi nga xam ne ci huitième siècle bi ñoo ko doon dund ànd ak ibnu taymiya ak ibnu kathir ak xam-xam yu mag yooyu ngeen xam. su fekkee ñoom ñoo dem ba am yëg-yëgu ci seen bopp ak seen jamono ñu gis fa gàtt yu mel nii jàpp naa ne buñ demee ba toll ci suñ jamono nun jamono jii nuy dund ak li am ci ak yàqu li am ci ak ay gàllankoor li am ci li dox diggante nit ki ak sàkku xam-xam li ko li ne ci kanamam ci ay défi ak i jafe-jafe mu bëgg a delloo si waat diine ji fas yéene jàng xam-xam fas yéene dund alxuraan fas yéene dund sunna jàpp naa ne ci jamonoy fedd li la xasaay ci lan toll ci yi euh, dëgg yu bare bare bari nag yoo xam ne ay gàllankoor la yuy dox diggante nit ki ak sàkku xam-xam ak jéem ko woyofal ci lan toll dëgg la mooy moom gën naa bari lool jàpp ndal yi bari na lool waaye ku yeex ku yeex xam-xam dana la raw maanaam doo sàkku xam-xam ndax yeneen yi dox sa diggante ak loolu ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu euh, ak xam-xam te xiir nu ci sàkku ko fu nu mën a toll mu néew mu bari mu jëfe ko te suñ ko jëfee mu sell yàlla dong tax sàkku gën a yàlla tax jëfe gën a yàlla tax te mu saxal nu ci loolu ba keroog nuy wuy ci sunu borom tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain di del ci waat di sant mbokk yi ci seen déglu gu rafet ak seenu teewlu di ñaan lépp loo xam ne lu ci jub la sunu borom tabaraka wa taala boole nu ci jëriñ te boole nu yool ba lépp loo xam ne lu ci dëng la mu jéggal na ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain